Euh, Lamsar euh, ci tableau ci Tivaouane euh, ñu ngi fa tey parce que tey li ñu ànd fii mooy que dafa am benn xale ah ñu ko ñu koy tuddee maanaam maire Ndiaye bu jékki-jékki rek dem ñoom seen waa gisuñu ko presque depuis quinze août ba léegi yaakaar naa ni loolu yàgg na duñ def lu dul toog yaayam waxtaan ak moom laaj ko affaire yi nan la demee maire ñu ngi leen di di la ziar. maa leen di fay di leen sant di leen gërëm. di wax tamit maa ngi ñaanaat ngir yàlla ak yonent bi sama doom ji nga xamante ne moo dem depuis le 13 août ba léegi yàgg na presque léegi moo mat na vingt jours presque ndax boobu ba léegi tamit mbokk yi fu ne ñu ngi fay wër fu ne ñu ngi koy seet ñun tamit ku xam lu ku mën a ku ko mën a lijjanti ba mu ñëw rek yaa ngi koy def mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi famille bi ba ci samay famille jëkkër muy Binta Ndiaye Kiné Ndiaye Ndey Kumba Ndiaye Aminta Ndiaye bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp kenn ku ci nekk loo mën ak loo mënul yaa ngi koy def kii di tàkku di sama magu yaay rakku yaay jóge na fii ba géejawaay ay fan bu ñëwee fii lay fanaan lu ne mi ngi koy def kon dëkkandoo yi sonn nañ torop pour mu feeñ te yàlla niitagu ko tamit damay ñaan képp koo xamante ne am nga ci lenn loo xamante ne xam nga ko nga dimbali ma te yàlla tax yéen tamit bi ngeen gisee suñu lii bi tamit ngeen def ci lépp loo xamante ne moom ngeen mën seen kàttan ak seen mën-mën pour mu feeñ te laajoo leen kenn dërëm kon yal na leen yàlla taxaw yal na leen yàlla sàmm jàppaleen jàppale mbooleem jullit man nag damay sàkku ñaan ak ndimbal ngir yàlla sama doom ku ko mënti yore ak ku mu mënti doon na ma jàppale te tegaat tegalaat ma ko ci sama loxo ndax ay rakkam soxla nañ ko ay mbokkam soxla nañ ko ay famiwam soxla nañ ko dëkk bi tamit soxla nañ ko ndax ñëpp a ko xamoon mu nekkoon xale boo xamante ne wax dëgg yàlla xale bu ma jàppale la woon ku ma taxawu la woon ci sama côté. est-ce que mun nañoo dikkalaatal demin bi nan la demee nan la demee xale bi. demin bi daal man dama xëy benn jour di jaayi léegi ne ko jiitu ma par ba soo demee nga génne bagage yi mu jiitu ma sama rakk bi fi muy jaayee. daan jaay quoi. waaw dañ daan jaay man ak moom mu jiitu ma sama rakk bi fi muy jaayee dajale bagage yëpp daal di génne sama rakk bi yónni ko caaro yi fi muy jëndee sungufu fuju njeer mu dem ba ñëw léegi quelque tuuti daal di dem kër ga man tamit heure añ jot presque ay 4 heures yooyu laa fi jóge di dem kër ga pour añi sa changé woog yooyu ma taseeg moom ci koñ bi muy ñëw ci man ma ne ko meera am 1500 yi boo demee nga jël mango ji nga dem jaay ko boo paree nga ñëw kër ga mu ne ma waa léegi mu jël 1500 yóbbu ko pour jaay léegi ne ma bi muy avant muy dem mu ne ma ajaa maa ngi dem su ma xiifee dinaa ci jënd lu ma lekk ma ne ko waa boo xiifee nga jënd ci loo lekk mu dem di jaayi léegi jël ci mango fi may jaayee mu fekk place bi may jaay jël ci jël benn paan yëpp ci mango ba mu bëri dem di jaayi waa jaay ba ay côté timis yooyu mu ñëw ci pàppaam di ma indil xaalis fekkuma fa fa may sëy léegi bi mu ñëwee mu ne papa maa ngi dem ci Adja yóbbul ko xaalis bi papaam ne ko waa demal sangu ba pare ne ko maa ngi dem ci Adja yóbbul ko xaalis bi sama pare damay dem seetaane ci xew bu nekk foofu papaam ne ko waa demal nga yóbbul sa ay xaalis bi mu ñëw di ma indil xaalis bi fekkuma fi. léegi moom fan la dëkk papaam Lamsaar la dëkk sama kër goro yi fi ñu nekk fa la dëkk man nag fa laay nekk toujours mais fii li ma fi nekk li tax ma fiy ñëw tout le temps fan yii yëpp suñu waa kër bu ñu ñëwee dañ fu ñu leen yabal dañuy ànd ak man ñu dem mais fu ne nag dem nañ fa. léegi bi mu ñëwee ne ma ne papa maa ngi dem ci ajaa yóbbul ko xaas papaam ne ko waa demal nga ci Adja nga ko xaas bi boo paree nga ñëwaat mu ne papaam waa mu ñëw nag fekkuma fi daal di dem xew bi nekk fii suñu ginnaaw seetaan ba pare léegi après noonu ci guddi gi ma xale yi dem leen woowu meer ngeen ne ko mu ñëw ñu ñibbi xale yi dem fekk ko fekk ko fa ne ko sa yaay na nga dem ñibbi. bu ñu ci guddi gi fekk nañ ko. waaw léegi après bu ñu ko gisee ne ko wuy demal wuy ji sa yaay nee na nga ñëw léegi nag moom tam mu ñëw mais man gisante wu ma moom man tam ma wa demaat ca xew ba di ko fa seet fekk ko fi ñu ne ma meera dem na. yi woowee mu ñëw moom ñëw na après dafa léegi bi ma demee ma dem ci xew ba fekk ma ko fa may wàññeeku fii ñëwaat ci kër gi fekkuma ko fi daal di ñibbi lamsaar léegi nag bi mu jógee ci xew boobu di génn di ñibbi si sama kër taseeg sama benn doomu mag ak sama rakk bu jigéen laaj leen ñooñu laaj ñooñu fan ngeen jëm ñooñu ne ko ci xew bi nekk fii ci kanam lañ jëm. mu ne leen xaar leen ma ñu ànd ñooñ ne ko yow ñibbi woo yaay mi ngi la doon woo mu ne leen xaar leen ma ñu ànd ma jaar noonu ñibbi waale mu dem ci xew bi nekk ci ñaari xew la woon mu dem ci beneen xew bi nekk ci kanam léegi après bi mu demee foofu nekk ci xew ba ba yenn heure yi ñooñu di ñibbi si ne ko meera nañ ñibbi mu ne leen dem leen maa ngi ñëw léegi dem leen. yàgg di dem ci loolu xale bu ndaw am 12 xel xew bu mu jékki gis rek dem waaw ci xew bi ci koñ la koñ bi rek la war comme xale yi la gisoon ñooy dem di seetaani mu ànd ak xale yi dem taxaw foofu di seetaan mais man waxoon naa ko bu bu bu boobu ci kanamee nag bu ci ngoo bëccëg gi ci bëccëg bi ma nee damay seen xew seetaan man ko bu fa yàgg boo paree nga ñëw mm-hmm. mu ne ma waa léegi après bi mu àndee xale yi dem xale yi war a ñibbi si ne ko maa ngi nañ ñibbi mun leen sama kër yaay laa jëm damay ñibbi damay seetaan tuuti ñibbi moom xale leneen loolu la leen wax non sama kër mu ne leen maa ngi ñibbi ba pare damay dem sama kër léegi xale yi daal di ñibbisi bàyyi ko fa après nag ñu toog noonu ba yenn heure yi man gisuma ko ma ñëw ci kër gi di ko seet ci guddi gi fekkuma ko fi man tamit boobu fàtte woon naa xew bee ma demaat ci xew bee tamit wër ko fa ba sonn gisuma ko ma ne xaaral ma ñibbi xëy na dañoo juyaloo. loolu ban la. ay presque huit ay neuf heures yooyu daal. waa ay vingt non waa ay vingt une heures yooyu. Mm-hmm. léegi bi ñu toogee ba yenn heure yi gisuma ko. ma ne xaara kon xëy na bu jógee ci xew ba dina ñëw ma toog ba yenn heure yi daal di tëdd rek daal di nelaw mm-hmm. ba bët set na ma ñëw laajte fi muy fanaan ñu ne ma meere ñëwul man leen meere ñëwul ñu ne ma meere ñëwul mm-hmm. ma dem ci kër sa ma ñëw fii sama kër yaay fekk ma ko fi ma laaj xale yi ana meere ñu ne ma xale xale ne ma meere ñëwul mm-hmm. ma leen meere ñëwul mooy waxi la meere fanaanul sama kër ñu ma meere de fanaanu fi ma toog nag ba yenn heure yi gisuma ko ma jóg di ko wëri wër ci koñ bi fu ma laaj ñu ne ma meere new mais ci xew bee la mujjee woon boobu ba léegi nag ñu ngi wër ba sonn gisuñu ko léegi ma woo sama rakk yaay bi dëkk géeja waaye ma laaj ko ndax meer af ñëwut foofu fanaan mu ne ma ñëwut foofu fanaan déedéet waa dafa dafa daan dem mais bu fa daan dem man maa koy bàyyi mu dem jox ko paas yëpp mu dem yenn nekk ci moom ba yenn temps yi kooku préparel ko ay bagages am yëpp bu waree ñibbisi mu ñibbisi mais moom amul habitude di dem di fanaan te man duma ko yëg mais xale bu am 12 ans est-ce que tamit yoon la muy jékki-jékki di dem fenn wala yooyu. non bu doon dem sama kër ma sam rakku bi moo koy woo pour mu ñëw yendul ko pour mu ñëw nekk ci moom quelque temps après mu ñëwaat mm-hmm. mais man wax dëgg yàlla man sama wet la nekk samay tànk la nekk moom moo may jàppale sama liggéeyu kër lu bari mm-hmm. lu bari moom ma ciy jàppale léegi nag ma woo sama rakku yaay bi nekk géejawaay ma ne ko ndax maire ñëw fa mu ne maire ñëwu fa mm-hmm. ñu woote Thiès fu ñu woot ñu ne maire ñëwu fa léegi nag sama rakk yaay bi tamit tiit ak jaaxle tamit mu bàyyi liggéeyam yëpp daal di ñëw depuis boobu ba léegi nag mi ngi jaabante chaque jour mi ngi ñëw moom ak mbokkam wax dëgg yàlla boobu ba tey lu ñu mën ñu ko ciy def ba ci sama magu jëkkër muy Binta Njaay aw ma fayam moom tamit chaque jour mu ngi ciy taxaw waa kër ga awma ci kenn seen fay muy Njaaya Yaasin amul ci kenn koo xamante ne am naa seen fay ndax boobu ba léegi lu ñu mën ñu ngi ko ciy def ba ci ndey kumba sama magu jëkkër bi ñoom tamit lu ñu mën ñu ngi ko ciy def mais yàlla ku ko boobu ba tey nag jaaxle naa. comme ni nga ko waxee mu nekk sa doom yàgg la jege euh, léegi nga xëy benn jour gisoo ko loolu ndax nga ko dundee. ah ni ma ko dundee métti ndax bu ma yeewoo suba teel moom moo may jëndali café chaque jour mooy jël jël ay rakkam jëndali leen ndékki su ma yeewoo suba teel tamit gisuma ko nekk na loo xamante ne lu ma metti la metti na trop ndax nga toog ay temps nga daan fanaanoog sa doom nga xëy gisoo ko mu la daan xëy di la jàppale chaque jour ci sa liggéey di jàppale ay rakkam di boot ay rakkam di leen yóbbu di indi di la jàppale ci sa liggéey ba ci sama njaay mii may jaay chaque jour moom ma ciy jàppale boobu ba tey nag samay famille def nañ lu ñu mën lu ne def nañ ko fu ne fu ñu xam fu sëriñ bu baax nekk ci ñaan ñu ngi ñu ciy jàppale mais boobu tey gisuñu ko te yàgg na presque mat na vingt jours bu ma xëyee suba teel nii moom mooy jëndale xale yi kafe pour ndékkeeg yooyu ak mburu léegi bu ñu xale yeewoo dañu naan ajaa maire ñëwagul du ñëw jëndale ñu ndékki ma ne ko maire léeg mu ñëw ma ne ko muñ leen maire léegi mu ñëw léegi bu timis jotee moom moo leen di jël si yóbbu leen bu timis bi jotee xale yi dañu naan ajaa meera nañ ñëw yóbbu dañuy ñibbi man leen meera léegi mu ñëw bu ñëwee mu yóbbu leen léegi guddi bu jotee mooy jëndali xale yi reer duma ko gis duma xam fu mu nekk métti na torop métti na torop maa ngi ñaan képp ku dégg sama message bii na ma dimbali sama doom lépp loo ci xam nga jàppale ma tax ndax tamit métti na torop nga daan fanaanoog nit guddi ak bëccëg suba ak ngoon nga xëy xëy gisatoo ko dafa metti ay rakkam tamit di ma ko laaj man loolu mun ma ko muñ mun ma muñ loolu ndax rakkam yi nga xamante ne mu leen di sang chaque jour bu ñu xëyee ne Adja mère duñ ñëw sang ma ne ko ah kay mère mu ñëw ndax ku xaw a dëgër ki sax moo xam ne mère dafa réer mais ku ndaw ki nga xamante ne moo koy jëndali ndekki chaque jour di ko sang. heure bu xëyee di ma laaj ajaa ana meera ma ne ko mu muñal meera léegi mu ñëw léegi mu ñëw dafa génn loo leen di wax xaw ma lu ma leen di wax boobu ba léegi tamit wër naa ba sonn fu dugg naa fa fu ma wax maa ngi dem ba potey toogu lekk tamit mënu ko mënu ma nelaw ba yaandoon ndax sama doom na ñëw sama wet ndax aw ma lu dul moom aw lu dul moom tamit maa ngi sant yàlla xam ne lu yàlla def rek ci doomu aadama loolu moo gën waaye lu ma mënti am sama doom ji ñëwaat ci sama wet moo ma gënal ak képp koo xamante ne sa doom réer na maa ngi leen di ñaan ñu jàllale message bi na ñëpp jot seeni doom ndax lii tamit metti na doom alalu yàlla la amuñu lu dul suñuy doom mu nekk jigéen sa xel ci lu ne lay nekk ak ni jamono ji mel nii metti na torop metti na torop maa ngi sant nag yàlla te xam ne lu yàlla def rek loolu Massa comme ni nga ko waxee euh, yaakaar naa ni comme ni nga ko daan defee à chaque fois euh, bi Bébé Aïda réeree def nañ ci lu nekk ba yàlla ñiitaat ko euh, di ñaan tey képp ki nga xamante ni mën nga jàppale maanaam soxna si. nga xam ne instant yii bi ko fekk métti na trop trop trop parce que depuis le 13 août comme ni nga ko waxee ba léegi sa doom bu jigéen am fukki at ak ñaar jékki-jékki dem xamoo ci lan la nekk loolu dafa li nga xamante ni métti na trop trop trop di leen wax ni nañ def numéro bi ci suuf képp ku nga xamante ni mën na ko jàppale wala képp ku nga xamante ni mën na def tuut ba yàlla ñi taal ko doomam rek ñu ngi sàkku ci yàlla nga defal loolu euh, alors tey euh, comme ni nga ko waxee dem ngeen ci ay ci ci ay sëriñ léegi ñoom nan la leen wax nee nañ xale bi mu ngi ci jàmm wala. dem nañ ci ay sëriñ waaw boobu ba léegi daal ñaari sëriñ doo ñu ne xale bi mu ngi ci lëndam mais nag fi ñu dem tamit bëri na torop mais ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dañ na laan xale bi mi ngi ci jàmm mi ngi lekk mi ngi naan waaye mi ngi ci jàmm boo xamante ne yaayam nekkul ci jàmm tamit xelam du dal ndax ba guddee bu ma tëddee sama xel mi sama doom ji rek lay nekk ndax xaw ma mi ngi nelaw ci jàmm xaw ma nelawut ci jàmm xaw ma ci yenn loxo lay yeewoo te fépp fu mu nekk tamit mën na faa yàqoo mën na faa baaxee lépp daal moom lu ma mënti am sama doom ji ñëwaat ci sama loxo moom ma ko gënal ndax ay rakkam soxla nañ ko ay fami baayam soxla nañ ko ñoom tamit daw nañ ba sonn samay jarbaatu jëkkër daw nañ ba sonn kenn ku ci nekk loo mën yaa ngi koy def sama magu jëkkër yi waxi noppi daw nañ ba sonn mais yàlla ni tëggu ko nañ nañ ma jàpp mais dañ ne la mi ngi Sénégal ak nee nañ la mi ngi fii Sénégal waaw ñu may wax loolu nee ma mi ngi moom mi ngi fii loolu lañ may wax mais xam nga chaque jour ak sëriñ ba ngay dem ak lam lay wax lépp lu ñu digga ci sarax ak ñaan samay rakk ñu ngi koy def samay magi jëkkër ñu ngi koy def sama yaay waxi noppi ñoom ñëpp la seen yaay yàqu sama rakk yaay bii tamit noonu wax dëgg yàlla boobu ba tey lu ñu mën ñu ngi ko ciy def mbokk yi famille bi ak dëkkandoo yi awma seen fay liñ naan dëkkandoo jàmm moo ci gën lii rek moo tax ndax boobu ba léegi dëkkandoo yi tamit kenn toogut kenn nelawul ku mënta ñëw fii yaa ngi woote téléphone ba ci Thiès sama mbokk yi nekk Thiès tamit awma seen fay ndax boobu léegi ku mënta ñëw yaa ngi woote ku mënta ñëw yaa ngi woote ñaan yi mi ngi dal fu ne mais daal sama doom wax dëgg yàlla bëgg naa koo gis ndax ku am ci man cofeel la ku am ci man yërmande la bañ na ko ba bu bu bu ñuy lekk dara sax man su ma ko amul day jël li nga xamante ne moom la war a def ci biiram mu jox ma ko toog yàlla xam na ko place ba may jaayee ba ma tollee diggante ba diis bu timis jotee moom may ñëw laalil ma bagaas yi des fois damay yëkkati xaalis sa jox ko ne ko demal nga wax pousse-pousse bi mu génne la bagage bi mu ne Adja déedéet pousse-pousse yi bàyyi ba rek ma jël xaalis bi yow nga ndekkee ko comme man ndekki naa ba pare nga jël xaalis bi nga ndekkee ko man su ma demee dinaa génne bagage yi billaahi su ba ñëwee fekk mu génne bagage sama rongo ñi sa day sotti ndax bagage yi dis na dis boo xam ne dina forcer chaque jour génne ko balaa may ñëw bu yëkkatee da te musuma jaayat dara ba cent franc manqué ci musta lekk sama xaalis lu mu jaay lu ne du ci nangoo génne dërëm dërëm dërëm ajaa am dem nañ police def déclaration dem nañ police ñetti police def fa déclaration démb lañ demoon police centrale bu nekk sàndaga ñoom tamit ñoom tamit nee na ñu ngi ciy def seen kéemtu lay kàttan man daal képp koo xamante ne sa xam-xam màcc na ci wàllu mel noonu nag ma dimbali ngir yàlla sama doom yàlla nit ko loolu daal laa bëgg. tàggatoo ak nekk sa message bi nga xamante ni yaa ngi message bi may jàllale pour sama doom ji feeñ mooy képp koo xamante ne xam nga dara ci xam-xam ak képp koo xamante ne xam nga ci wàll wi nga xamante ne moom ngeen di liggéey nag ma dimbali ngir yàlla nga taxaw ci sa tànk pour sama doom ji feeñ ak beneen doomu jaamur njaboot gu mel ni man ndax tim ne nii réer bi ci dëkk bi bari na torop bëri na trop xale yaa ngi taxawaalu ci dëkk bi tey jii bi man bi ma demee ba di wër sama doom man bi ma demee fi ñu ma tettal fa nga xamante ne foofu la ay xale di dajaloo bi moo gisee man lii ma ne kon yàqu na ndax xale yi fekkee xale yi nii la ñuy taxawaaloo muy góor ak jigéen di def noo xamante ne naka su noonu la mu lay leer di ñii buñ leen jëloon jàppale leen wàññi leen ñoom dinañ baax mais xale yi dañ leen di seetaan xale yi dañ leen di seetaan dëkk bi xale yi yàqu nañ dañu leen jàppale ñu jàppale xale yi xale xamul dara dañ leen jàppale te yàlla rek moo tax yenn milliers yi boo fa demee ba fekk fa xale yi danga naan lii amut dañu jàppale xale yi surtout boo njiitu réew mi nañ jàppale xale yi ñu surveiller leen xool leen dañ jàppale xale yi yéen tamit awma seen fay ndax biñ leen woowee laajoo leen kenn dërëm da ngeen def te yàlla rek tax lii nga xamante ne mooy seen liggéey yàlla yokk ko ba mu jëm ci kanam yàlla dimbali leen jàppale leen taxawul leen ba ngeen yor ci ay télé télé ndax tamit feeñal ngeen ku ne wax dëgg yàlla feeñal ngeen ku ne ku ne feeñal ngeen ko di leen jàppale di leen ñaanal nag ci seen liggéey bi yàlla jëmale ko ci kanam yàlla jëmale ko ci kanam di leen ñaanal bu baax di leen sant di leen gërëm maa ngi tamit ñaan encore une fois may waxaat di ñaan mbokk yi jullit yi doomu aadama yi doom alalu yàlla la nit ñu jàppale te yàlla rek tax suñu njaboot yi ñëwaat ci suñuy wet ak képp koo xamante ne yaa ngi taxaw di def doomu jaambur naka su dul noonu yal na la yàlla weer yal na la yàlla weer ndax lii tamit dafa metti nga xëy a gisoo sa doom dafa metti te du man kese du man kese am na ñoo xamante ne gisatuñu seeni doom wër nañ ba sonn gisatuñu seeni doom di leen ñaan ngeen jàppale leen njaboot ñi ñëwaat ci suñuy loxo ngir yàlla ak yonent bi loolu daal laay ñaan Euh, jërë ngeen jëf suñu mbokk internetu euh, Feeling Dakar TV comme ni ñu koy waxee à chaque fois euh, nee doom dafa tax ci xol te rawat na mu nekk jigéen ba pare jege woon ko comme ni nga ko waxee amoon loolu ci man yërmandeem kon yaakaar naa ne ñi ngi sàkku képp ki nga xamante ni yaa ngi tee doomam ji dañu seetaan nga andi ko ci barke Seydina Muhammad parce que lii dafa metti quoi man mi nga xamante ni maa ngi def émission bi sax man am na fu ma toll di sàkku rek comme ni ñu koy defee à chaque fois